allah ah tey la tey bis la mais bis bu mel nii jafe na torop dafa jafe voilà dafa jafe eh, tey ngi si àll bi fi tey eh, barke gambo bi barke gambo bu eh, bis bu rëy bi ñu mu ngi waaj dugg si gambo bi si bis bu tëdd bi moo ko waral tey man Ablaye jibo maa ngi si biir àll bi di dimbale doomu aadama tey ak bisi gambo bi maa ngi def promotion si wàllu xam-xam bu ñuul maa ngi def promotion si wàllu garab soo waxee garab àll bi garab bi si àll la fekke ba maa ngi si àll bi tey man Ablaye Djibo je suis cent pour cent musulman maa ngi julli maa ngi woor maa ngi jaamu yàlla lool sax avec tout ça yàggul dara suma wàllu fétiche yàggul dara suma liggéey tey maa ngi si biir àll bi maa ngi bëgg a garab bi garab bu doy war mu ngi ni si biir àll bi fi garab bi moo tudd bati bati si bambara mais garab bu doy war mu ngi nii lu mu faji doomu adama dafa bari nit ko xamante ne da am tension wala yow nit koo xam ne da ngaa télé wala nit koo xamante ne yow mii sa yaram bi dafa am liggéey yu bari bu nekk si yow gars yi dafa la sànni kortu sa yaram ou ku xamante ne da ngaa yar sa yaram dafa am ngelaw garab bi moo ko faj garab bi moo ko faj wala man mi man footballeur la maa ngi bëgg a contrat dëgg bi maa ngi bëgg a uti contrat man j'ai fait dans le football man dama bëgg am contrat bu gaaw wala man maa ngi football man dama bëgg a si bii dugg bii rek ma toog si banc duma ma toog si banc wala suma entraîneur bii juboo ma ak moom moo xam tubaab la moo xam nit ku ñuul la man du ma ak moom dama bëgg ma toog si ma dugg si football ma dugg si bii lool sax ba nga doy garab bi moo ko def wala man ak suma borom kër du déggoo jaama amul suñu diggante garab bii moo ko faj sëriñ ni ragal leen yàlla ngeen xam ñu ñëpp ngi dee dugg si benn peregal bu bu juróom-ñaari peregal su ko xam loolu rek nga xam adduna dara adduna tii dafa jeex pare sëriñ bu nga xam da def lu baax yàlla rek tax man Ablaye Djibo su ma liggéey dama dimbali ay jaam nit soo demee ba nga jaaxal amatoo dara woo ma rek dina kam lu ma la mënu dimbali suma xam-xam bi parce que yàlla daf ma dingat xam-xam pour ma dimbale jaamu yi pour ma dimbale ay jaamu yi man dama dox ay mission laa dox mission rek laa dox loolu su weesee combat Modou Lo Ama Baldé combat bu mystique mu ngi noonu mais combat bi surprise day am de man Abdoulaye Diop li mu gis laa la wax de lu mu gisul duma ko wax combat su desee ñetti fan dinaa wax moo daanu sa morom awa dara du ko dara du ko dindi c'est lu wóor tay mbër yi mu ngi ma contacter côté bu ne mais ñàkk jot jot bariwul aw ma jot maa ngi ñaan cooy am senegal ma ñaan pour yàlla mu def ko ndox mu sedd guy mais jamono bi warkat dafa bari trop man mun naa def lu bon mun na def lu baax da nga gis yi dafa bari jamono bi nit yi xamante mu ngi nakaate dafa bari si jamono bi góor bariwul jamono bi góor dafa bariwul mais xam-xam bu ñuul am na de su lu war sax fekk si yu bon bon am naa ko quatorze pays laa dem uti ay fétiche yu doy waar mun na def lu baax mun na def lu bon ku xamante da nga am problème boo am suñ jokkoo soobee sa aaju faj na